L'Ergue TV, la lumière du Coran et de la Sunna. Abonnez-vous. Taïnoui, ñu Ben Tombo, ci Japonani, tomb boo xam ndax yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam dafa wax ci benn xadis boo xamante ni imam ahmad moom moo ko solo ak imaamu tirmisi ñu jëlee ko ci abi hurayra radiyallahu anhu wa ardah abu hurayra mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ne salaasu daawatin mustajabat la shakka fihin دعوة الوالد على ولده ودعوة المظلوم ودعوة المسافر muy xadis boo xam ni jullit bi daf koy soxla ngir xam ko ngir mu mën a moytu yu baree bari waaye mu mën a jëriñu it nag ci yu bari ci bu dëppalee xadis bi ak waaqee xam ni li yonent bi wax tey da ngay fekk ci jullit ñu bëri loolu daf leen di dal abu hurayra nee na yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ñetti ñaan a ngi nii yàlla daf koy nangu di ko delloo ñetti ñaan yoo xam ne benn buñ ci ñaan rek wala kenn ku ko ñaan yàlla dafay nangu ñaan boobu donte yéefar moo ko ñaanal jullit donte jullit moo ko ñaanal yéefar donte wayjur moo ko ñaanal doomam loolu ñaan yooyu dafay nangu la shakka fihin mu ne bi ci jiitu daawatul walidi ala waladi waliyadu billah mu ne ñaanu wayjur ci doomam loolu moom la shakka dafay nangu ñaanu wayjur ci doomam loolu mooy lan maanaam sa wayjur mere la ñaanal la waxul ñaanal wayjur doomam bu waxoon ñaanal wayjur doomam mooy wayjur ñaanal doomam day nangu moo xam loolu ci xayir yàlla jëm waaye lii fi mu jëm mooy wayjur ñaanal doomam lu bon wal iyaasu billah yàlla nañ ci yàlla musal nga xam ni tey bëri na لمي أم بني سيد لو نتني على مختلف أحوالهم لغاي فك لسان قالهم وحالهم ويجري جبوتن أك دومي دومي تمت جبوتن أك ويجري لولو بن تومبلا نياري لتومب بي مي دعوة المظلوم كوني تون موي جولين نيانم ku ñu tooñ dul nga tooñ nit mu ñaanal su la ñaanalee la chakka day am loolu yonent bi nee na kenn amul garantie même bu doon yéefar bu ñuul kuk saaxir bu ñuul kuk kaafir bu ñuul kuk mushrik bu ñuul kuk ak lu bon bon bon bon soo ko tooñee mu ñaanal la ñaan bi day nangu kon loolu ajuwul ci ku baax rek moo lay ñaanal lu bon mu nangu mu ne ñetteel bi daawatul musafir aji tukki ñaanam dafay nangu ñu xool yonent bi sallallahu alayhi wa sallam keemaan bi muy jàngal ñu jàng ci waaqe nga xamante ni amoon na ci ñaanu wayjur ci doomam bu baax ñaanu wayjur boo xam ni dafa ñaanal doomam te doomam jooju min awliyaa illahi saalihin doom ju baax ju ragal yàlla muy jurayj jurayj yenn boroom xam-xam yi ñoom la ñuy wax ni moom mooy George ci seen tur ñoom banu Israil waaye ki kaana min al umami sabiqa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom moo ñu nettali dundam loolu moo tax ñu mën cee jël lii ñu bëgg a wax nga xam ni juray ji benn commerçant la woon boo xam ni fii awali xayaatihi dafa tàmbale woon di commerce di jaay di jënd léeg-léeg mu am bénéfice léeg-léeg mu perte yu rey ju julli mu ne day ñaan yàlla commerce boo xam ne du perte ay tijaaratan lan tabuura commerce bu dul perte loolu su ma laajoon mboole bi est-ce que am na commerce bu dul perte am na ah am na kay am na de ah commerce bu dul perte am na ah bu leen fàtte alquran han am na très bien kon am na léegi moom mu ne dafay ñaan yàlla commerce boo xam ne du perte jamais mu xool mboolem projet am gis ni projet adduna yëpp boo ci dugg tey nga perte suba nga gañe te la kazalika alxayaat loolu mooy dund tey day neex suba mu naqari loolu la àdduna mel commerçant bi tey day gagné lu bëri suba mu ñëw gagné lu tuuti léeg-léeg sax mu ñëw du am dara ndax àdduna moom ñaari mbir dong la laqad xalaq na al insana fi kabad kabad kabadi ba àdduna àjjana wala kabadi kabadi ba safara yàlla nañ jàll musa léegi juray ji mu ne moom gis na ni commerce bi mu bëgg def ci boromam rek la mën a nekk mu dem jël xaalis ba mu amoon ak tuut mu tabax ci benn église mu tabax ci benn église jamono yooyu ñoom loolu la ñuy tabax mooy seeni jàkk bi mu ko tabaxee nekk foofu di jaamu yàlla takkul jabar deful dara fa lay xëy di jaamu yàlla di kontu di jaamu yàlla nekk foofu ak ni mu déggee jaamu yàlla ak ñàkk xam bu ko dab nga xam ne da koy jàngatee ci biir jëf bi juree ji nekk ci noonu ba dëkk bi ñépp yëg ni kii aabid la saalix la taqi la jaamukatu yàlla la ku ragal yàlla la ku sell la te loolu léeg-léeg buy dal nit day bëri noonu képp ku jox yàlla boppam rek nga soppi ko nekk noonu nit ñi lan moo tax parce que seytaane nga déclaré guerre moo lay jaxase ak nit ñi moo tax saa boo ci lu neex yàlla rek jamono bu nekk ñu ngi ut sa accident pour problème am ju rëy ji nekk ci lu mel noonu benn bis yaayam soxla ko benn yor am lu mu ko bëgg yaay ji génn ci kër ga dem ci église bi fekk na juray ji mi ngi jaamu yàlla yaay ji woote ne yaa juray ji yaa woo ko ñetti yoon juray ji ne allahumma ummi wa salaati loolu ci xel mi la ko wax waaye kii nettali yonent bi bu leen fàtte ni kooku dara réeru ko mooy yàlla léegi jurey ji mi ngi ci biir julli gi jàpp na ni julli gi moo gën wuyu yaayam moo tax mu ne allahumma ummi wa salaati ay allahumma maa afal bayna ummi wa salaati hal atruku salaati fa ujibu ummi am laa loolu mooy question bi yàlla ndax damay dagg julli bi wuyu sama yaay wala mu continuer julli bi te xam ne du julli kenn waru koo daggee noonu kon moom lan moo ne ci xelam li mu jàpp mooy dafa war a continuer julli gi foofu boo demee indal ulama dañuy wax ni juray Jurayj aabid la du aalim aabid ak aalim dafa am fàq kii jaamu yàlla ak kii am xam-xam duñu benn ndax kii jaamu yàlla te amul xam-xam léeg-léeg bërëb bi mën na fee def lii te du ko xam loolu moo koy indil problème bi mais su xamoon ni ci sunna la nekk mën na wuy yaayam mais xamul ni ci la nekk moom dafa jàpp ni lépp jaamu yàlla la waroo dagg jaamu yàlla gi di wuy kenn léegi loolu mu am ci sikk wuyuwul yaayam yaayam mer ñibbi foofu lu jaadu woon bu mu paree ci jaamu yàlla mu daw wuy yaayam waaye mu continuer ba suba sa yaayam ñëwaat ci même waxtu ne yaa jureej yaa jureej ba muy ñetti yoon mu fekkaat muy julli mu ne allahumma ummi wa salaati mu defaat la même wuy wul yaayam yaayam dem ci ñetteelu fan bi yaay ji ñëwaat bi yaay ji ñëwaatee woowaat juray ci même waxtu juray ne allahumma ummi wa salaati yàlla nan laay def nan laay def mbokk yi bu doonoon kenn ci ñun sa wayjur ci xaal bu mel nan ngay def ah wala soal bi amul tontu ah ah da koy très bien koy dagg wuy sa keneen ah pourtant am na ñu fi xam masala bi xaw a ragal moo leen jàpp rek ragal rek mais mais mais léegi nag pour masala diine la rek buñ ci juumee dañu jubbalante rek ah soo paree yow da ngay continuer nga daw wuy ji yow nag li mu wax nga bëggoon kon kële dafa ne da ngay dagg julli bi wuyu kii mu ne soo paree da ngay dagg wuyu ñaar yëpp bu ci nekk mën na nekk mais foofu dañ lay sant nga gaawal li nga doon def maanaam ci sunna nga nekkoon da doon julli fekk na la ci moment boo xam ne mënoo koo wuyu mais gaawal gaawal julli bi mooy fexeel julli bi gaaw nga wëlbati ko daw dab ko wuyu ko loolu mooy tontu fexeel mu gaaw léegi nag bu dee ku xamul ci ñun mën na nekk sax ci tahiyatul masjid léeg-léeg daf ñuy jàll ci suñu jumaa yi imam taxaw di xutba nga war a def tahiyatul masjid nga war ko gàttal nga mel ni ku nekk ci fart loolu ahlu sunna yi rek lay dal xawma ma dégg ngeen wax bi wala déet ahlu sunna yi rek lay dal ñoom rek ngay fekk imam bi xutba ñu ñëw taxaw kàbbar bu ñu kàbbaree ne fa foog ni te xanaa xamoo jamono bi imam di xutba lu dul xutba xutbaa ko gën jamono bi imam di xutba lu dul xutba xutba moo ko gën kon foofu bu ñëwee salli rakaatayni wa awjizha jullin ñaar ak mu gaaw ndax nga déglu message bi imam di joxe mooy sa ñaari rakka yu njëkk kon foofu juréy ji li ko jàpp ñàkk xam la ndax li doon ixsaan moom mooy mu wuyu way juram yaayam mer ne yàlla juréy ji de maa ko jur sama doom la woonaa ko wuyuwuma yàlla yàlla na ko wan wujuhal muumu saat loolu li muy tekki mooy ñaanal na ko nattu ci adduna mais ci adduna rek nag la ko ñaanal kon yaay ji foofu muus na ndax su ko ñaanaloon sax nattu àllaaxira daf koy daal moo tax mu ne allahumma laa tumithu hatta yara wujuhal muumu saat yàlla maa ngi lay ñaan juree ji bu mu dee mukk lu dul mu am nattu ba gis njaalookat yu bon yi loolu nattu la woon ci ñoom yaa ji mer dem ñëwaatul juray ja continué fi juray ji continué nekk ci ibaadaam dem ba ci yàgg banu Israil tàmbale am ak moom jafe-jafe meroo dikk ñu mere ko ndax bandi yi bugguñu ku baax comme ni ma ko waxee woon léegi nag ñu ne nan leen fexeel Jurayj ndax rey nañu ci julli bu bëri woor bu bëri nit li ko gën a jaaxal lum mënul su la ko yàlla mayee mu noonoo soo bokkoon a benn xale bu góor néeg saa boo jógee kàppar julli bu yàggee dana booy soof nga ñu waayow yow yow da nga soof quoi fekk pourtant yow sa bopp ngay defal li nga def waru ko gêné mais nag comme tàmmul lu gaaw da koy gêné loolu muy nit saa bu ku jub ci wetam yaa dëng léegi nag banu israil waxtaan ñu ne nañ ñu leen seet nan lañ koy fexeele mu am benn jigéen bu nekk ci seen biir jigéen bi gënoon a rafet ci seen jamono nga xam ni baaxi yàlla day jaay boppam ndaw su bon la ku mu mës a jàkkaarlool isxaal na la an nafsi ndaw si ne man dinaa fexeel jurayj dinaa ko tuumaal ba ñu tëj ko kaso toroxal ko gaa yi ne ha ha rayun saaqit loolu sax moo gën ndaw si bàyyi ba guddi mu potoxlu dugg ci biir église bi te juree ji nekk di jaamu yàlla ndaw si summeeku ba set ñëw di def ay geste pour juree ji njaaloo ak moom wal iyaadu billah te nga xam ngeen xam ne mbokk yi moment bu mel noonu waxtu woowu ku fa eh, yàlla dimbale xool leen Yuusuf lu borom bi laqad hamma bi wa hamma lawla an raa burhaan rabbi kon nit nit la rek yàlla lay dimbale rek nga mucc ndaw si def geste bu nekk jurey faale wu ko mi ngi jaamu yàlla di ñaan mi ngi jaamu yàlla di ñaan lii ñu def jurey ji def nañ ko ci taabiina yi ñu bari am na ci saxaaba yi bu ñu ko defoon defe naa ni yéen ñëpp yéen a ngi xam turu saxaabi bu baax bii ñuy wax xubayb xubayb loolu dal na ko nga xam ni ci nattu yi gën a metti moo ko lal ndaw si jéem pexe jéem jéem munul dem ba jàpp ni kii bant la du nit mu découragé génn bi mu génnee am na benn sàmmkatu ay gàtt yu doon wéeru ci église bi di noppaloo foofu ndaw si xool comme waxoon na ne dinaa ko toraxal réussirul mu ne naa ko tuumaat ndax pour moom bu delloo te li mu bëggoon amul kon daanaka projet yàqu na mais xam ngeen ni pexe jigéen dafa yaatu. comme réussirul ci bii mu ne naa ko taqal léegi ndaw si ñëw ci sàmm bi njaaloo ak moom bi mu njaaloo ak moom yàlla dogal ndaw si ëmb ñibbi bi ndaw si ëmbee ba doom muy doom ju ndaw si indi xale bi ne leen lu ma leen doon wax jurey ji de moo ko jur moo ma ëmbal gaa ne ha rek tëb daw ñoom ñëpp ñi gàddu yat ñi jaas ñu dem yéeg ci kaw wàcc Jurayj ba mu wàcc ñu di ko dóor di ko bërëñ di ko futti loolu yëpp ci ibtilaatullah la àdduna daarul mihan wal balaya ay nattu rek la ñu ngi dóor Jurayj mais xamul lan lañ koy dóoree ñu ngi dóor ñii naan ko yow ku bon ki yow kat bi da ngay jaamu yàlla nangam nangam nangam nangam moo tax Eh, bu ngeen seetloo suñu dund buñ ko tawaasune ak dund nit ñi benn xale bu góor bu génnoon fii lëng xale bu jigéen est que problème la ah laa qaddar allah laa qaddar allah benn borom sikkin bu téye woon loxo xale bu jigéen waxuma sax lëng ko de téye loxoom ñu dem rek suba tës ah kon kii bu njaaloo woon nu muy mel nu muy mel waaye nag àdduna noonu la noonu la képp ku woote woo lu baax da ngay fexe nga setal sa bop di setal sa morom parce que ñun ñi ku joom rek da nga joom lo ñeneen parce que ñun ñep dañ ñoo jàppale ay borom xam-xam moo tax borom xam na iza zalla alim zalla an zallatihi l aalam benn borom xam-xam bu daano daanel ñu bari ngay deg si gaan mais Oumar Sall mo fet quoi ak waxam bu bari bi kenn da ngay dégg sax maa ko fekkee nit ñi da fekk seen fit ragalu ñu daara dina am ku ñemee waat ni billahi fekke na ba muy njaaloo fekk naa ko xale bi nii la tudd nangam nangam te xamu ci dara mbon rek moo koy def juree ji toog ba caag mu ne waa yéen yéen lan laa séq ba ngeen di ma dóor ñu ko yow nga njaaloo mu fan laa njaaloo ñu ne ko xale baa ngi nii ndaw saa ngi nii ndaw sa ne yaa ma ëmbal juróomi laa ilaaha illa yaa ma mën foofu juróomi ji bu ragaloon day tax ba faaw juróomi ne nee na maa ko ëmbal ñu naa ma bàyyi leen ma ñu bàyyi mu ne may ma mu julli ñaari rakk ñu may mu julli ñaari rakk mu ne ana ana xale bi liir bi ak yaayam ñu indi jigéen ji mu toog uuf xale bi juróomi ji julli ba pare ñaan yàlla. xoolal li mu doon doon waajuram teewul mustajaabu daawa la bu ñaane yàlla may mu ne ana xale bi ñu ne ko mi ngi nii mu yëkkati baaraamam jam ko ci jumbo xale bi ne ko man abu ko yaa fekk kan mooy sa baay xale bi ne ko sàmm bi doon wéeru fii moom mooy sama baay ñëpp dafa wax ñëpp dégg kooku mooy ñaareelu xale bi mu sa wax ginnaaw Isa mooy ñaareelu xale mooy da nga dégg nga gulaamu jurayji wala tiflu jurayji rek bi liir bi waxee rek ndaw si sëgg gars yi ñun ndaw si yaa mën a fen sa wax ji nangam nangam nangam léegi nag <coughs> gars yi nañ doon dóoree ju rey ji ba naajteel yaram bi léegi ñëpp ñu ngi koy fóon di ko raay di ko fóon di ko raay ba jàgg ko ñëwal léegi incha allah danañ la tabaxaatal église boo xam ni or lay doon mu ne leen déedéet aiduha bi tiini wa tiini delloo leen ma sama église na mu meloon ma dellu di jaamu yàlla mais lan la ñuy jàngatee foofu xoola kii ni mu mënee jaamu yàlla yaayam ñaanal ko mu nangu ñun ñun bu ñu suñu yaay ñaanalee nu muy mel ah ñun bu ñu suñu yaay ñaanalee nan lay mel ah non bi def katu bidaa la quoi paa bi bidaa kat la ay bi ay am na sax ku ma mos ne ma yaa xii dama lay laaj benn question quoi xam nga sama musrik la ma ne ko subhanallah lii kenn du ko wax xam nga ñàkk xam <laughs> man sama papa la ma danger boobu sama papa musrik la non non non loolu baat baat boobu subhanallah loolu kenn waru koo wax kenn waru koo wax ëpp na même sax woowee nit ki mubtadi te amoo ci lu leer waroo ko def. mais borom bi daf ñuy jàngal ni wa qada rabbuka alla taabudu illa iya wa bil walidayni ihsana wayjur da ngay def ci moom njekk da ngay def ci moom njekk njekk boobu nag yàlla boo gisee mu jël àqam lënkale ko ak njekku ñaari way dafa am lu tax parce que daf lay wan ni wumal baab ak baay ñooy buntu bi lay jëmee àjjana sa yaay ak sa pap kon sa yaay ak sa papa da nga war a def ci ñoom njekk njekk boobu bokk na ci nga yërëm leen muy waxfid lahuma janaaxa zulli min arrahma wa qul rabbi irhamhuma kama rabbayaani sagira gis nga ñëw na ci imam daara qutni benn xadis bu am solo boo xam ne mi ngi nettali mu ne dafa am benn waay ci jaamu yàlla yi yeneen bee ko nettali mu dem àjjana nekk ci deuxième étage waa ji jékki ba ci yàgg gis boppam septième étage mu ne ah yàlla man sama jëf ni mu tuutee woon sama jëf ni mu tuutee woon ma nekkoon deuxième tey maa ngi septième lan moo ko waral. yàlla ne ko da ngaa bàyyi ci aduna doom bu baax mu lay ñaanal doom bu baax mu lay ñaanal ñaanu doom bu baax essentiel na ci aljana ñaanu doom bu baax motax tax bi sallallahu alayhi wasallam wax na ni nit bu génnee aduna ñett rek projet mi yépp day tëj yépp day tëj ba mu def ñetti portion la ko yàllay may bokk na ci waladun salih yadu doom bu baax bu ragal yàlla bu lay ñaanal dana la may àjjana kon suñu itte yépp ci ñaar la war a dellu bi ci jiitu ñun ñuy ñaanal suñuy wayjur ba pare ndax ëllëg suñuy doom ñaanal ñu birru abaakum tabarrakum abnaakum xadis boobu sanad bi am na daaf mais min xaytu maana wér na maanaam def leen lu jekk ci seeni wayjur su ko defee seeni doom fay leen ko diggante doom ak wayjur balu teng la soo dóoree ci miir day ñëwaat day répondre boo nee teel rek xaar ko mi ngi ñëwaat kon junay jë ñàkk xam moo ko dugal ci njuumte bu toll nii waaye bul fàtte ñaan bi ko yaayam ñaanaloon da koo daal di fekk si kon loo baax baax baax del ñaanal sa wayjur kon ñun fi mu ñuy delloo ñu yëg ni sunuy wayjur dañu leen a war ñaanal surtout nag ñaanal leen al hidaaya ñaanal sa wayjur hidaaya dara gënu ko ndax yàlla mën na la wërsëgal nga am chance bu sa wayjur amul woon kon yow yaa war nekk ooram xam nga nit bu amee oor balaa mu ko jëriñoo jaay ko kon yow ci sa bopp da nga waroon di ñaanal sa wayjur yàlla yërëm ko waaye yàlla jubal ko ngal bu ko tabdiye bu ko tax takfiir bu ko bidaaloo bu ko defloo dara ñaanal ko yàlla te xam ne daa gisagut gis nga lii nga gis nii wallahi képp ku ko gis dana ñëw sunna dafa leer nañ nañ nañ nañ bu lëndamee ci nit nag loo wax du ko jël dafa leeragul rek mais bu leeree ci moom ñëpp bëgg àjjana ñëpp bëgg àjjana sa way wayjur say mbokk ñëpp ñaareel bi yow da nga war say sœur ak say frère ñëpp da nga leen war a yéene àjjana ndax xam ngeen ni dama koy wax toujours ajjana ni mu yaatoo munuñ koo feesal loo fa iñaanee keneen munoo koo jeexal ñun munuñ koo jeexal waaye dañ koo yaatal ñëpp ñëw kon lu mel noonu ñaanal wayjur dafay dimbale doom dëngee wayjur nag dëngee wayjur bokk na ci bàkkaar yi gën a mag yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ko benn bi ay sahabaam ne leen kaay leen ma wax leen ñetti yées ñu ne ko ban ak ban la mu ne al ishraaku billah bokkaale yàlla wa uquuq al ak dëngee ñaari wayjur sa wayjur mbokk su la woowee loo doon def bàyyi même boo doon jàng alquran sa papa woo la ubal nga ñëw wuy ji bi du jeex doo jeex te mën nga wuy ba pare da nga nekkoon ci jëf liggéey da ngay bind wala da liir wala da ngay nàngam sa wayjur soxla na moo xam sa wala sa papa baal loolu da ngay waxtaan woona la demal parce que gat ummuka sababu wujudik taibat fi wiladatik kon sa wayjur moo sabab sa ñëw kon bu la soxlaa dawal nga dem ci moom beneen bi xuququl walidayn day tax yërmande yàlla dañ ci yow ku yàlla yërëmul wal iyaadu billah safara mi ngi lay xaar yàlla na ci yàlla musal beneen bi uququl walidayn day dox diggante nit ki ak ñaan bu nangu saa bu la sa wayjur waxee nga bañ mu tere la nga bañ boo nee allahumma yàlla bañ boo nee allahumma yàlla bañ kon nañ leen càmbaraat bu baax suñu bopp suñu diggante ak suñuy wayjur beneen bi bokk na ci dëngee ñaari wayjur boroom xam-xam yi nee nañ nga jaar ci seen tur ci seen dund nga jaar seen ci seen dund loolu bokk na ci dëngi way léegi nag loolu dafay dellu ci aada dëkk yi dëkk bu nekk daf ci am aada ñun suñu aada boo wax jaaree ci turu papa loolu tooñ la mais am na ñoo xam ne seen aada wax ci turu papa dara nekku ci mais mu mel nga ni Muhammad ibn Abdullah wala Abdullah abu nangam kooku du problème mais ñun tey jii boole woon diw ku tolloog sa papa mbaa bu maase ak wala sa baay ñàkk yar la kon respect boobu na ko am ci sa kanam wayjur beneen bi koy ñaanal ci nit ñi jiitalal sa wayjur ba pare nga doog cee teg kon mbokk bu ñu jàngatee nag léegi ci wàllu muamala boo toogee sa wayjur toog ngal la bul toog ci kaw sa wayjur toog ci suuf loolu neena nañu bokkul ci teggin jaabir ali jaabir mi ngi koy wax ci benn téerim bu mu tuddee alxudwa nee na bokk na ci ñàkk teggin sa wayjur toog ci kaw nga toog ci kaw bokk na ci ñàkk teggin nga ànd sa wayjur nga di ko jiitu su dul mu nekk bariir bu nekkul silmaxa waruloo ko jiitu su nekkee silmaxa nag yaay dalilam kon mën nga koo jiitu mais sa wayjur bu dul silmaxa rek amoo droit nga jiitu ndax boo tolleeg moom da koo def moroom boo ko jiitoo da nga koo xeeb kon toppal ci ginnaaw loolu dafay tekki ne loo nekk nekk ndaw am mulaazama ak mag beneen bi ci des bokk na ci ñàkk respecté ay wayjur ñàkk respecté ay wayjur mooy nga di ko nuyu jox ko benn loxo rek nii taxaw. ñun ci suñu aada bokkul ci respect nga jox mag benn loxo bokkul ak respect ñun suñu ci respect ci ñun mooy nga jox ñaari loxo mi ngi mel tey boo demoon ci lu ñoom seen nuyoo bu dee ndaw buy nuyu mag du ko jox loxo day ñëw taxaw ci wetam ba sëggal mbagg mi noonu mooy wax fit law maa janaax dund ñoom noonu la ñu defee da ngay ñëw rek loolu loolu bu dëkk male xam na li may wax bi da ngay taxaw ci wetu way ju rek nga sukk mu teg loxoom ci sa mbagg ñoom noonu la ñuy nuyu kon ñoom seen aada loolu waaye ñun suñu aada mooy mën nga nuyu sa wayjur mën nga kaf moom waaye ngal la bul dépense fi mu gën a mettee nag sa wayjur bu nekkee mag su nekkee mag foofu la gën a doy waar ndax mag dafa naqari nekkal benn waaye dafa ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko yore naa ko dimbale ko ba mu génn àdduna ndax matal naa ko lëre yonent bi ne ko ba koy yore mu feebar loo bëggoon mu ne ah man kay nag dëgg-dëgg damaa xonnoon ba yàkkamti woon naa mu dee mu mën a dox samay soxla ah, effectivement daa wax dëgg rek ñu nit noonu la boo yore sa papa mu feebar léeg-léeg da nga commencé ah, papa deemoo deema noppalu loolu da nga koy wax parce que nit nga bi mu waxee loolu yonent bi ne ko yaa wuuteeg sa wayjur sa wayjur da doon ñaan lu dund yow ngay ñaan mu dee kon mënuloo ko fay ibnu Umar toog na ci buntu Kaaba gi jooy jooy yu benn waaye moo ko romb ndeysaan yenu yaayam di ko wëral Kaaba gi ibnu Umar taxaw xoog ba waa ji pare ibnu Umar woo ko mu ñëw mu ko kii kan la mu ko sama yaay la ibnu Umar jooy jooy jooy yu métti mu ko lan la mu ne lii rek laa bëggoon ci sama wayjur yàlla mayut ma ko lii rek laa bëggoon sama wayjur yàlla mayut ma kon mbokk yi ndeke loo baax baax. loo ragal yàlla ragal yàlla àdduna yoon bu gudd la yoon la boo xam ne li lay dimbale mooy nga taxaw ci ragal yàlla waaye taxaw ci ndénkaaneel ñaari wayjur bokk na ci nag ay xaritam sa papa bu fekkee génn na àdduna mu bàyyi ay xaritam ñooñu ngay jokk loolu amatul Dakar sa wayjur génn na àdduna moom la leen di waxoon waaja an tasila ahla wudda abik su sa papa génnee àdduna bokk na ci àqam ngay ziyaare ay xaritam ya mu daan ziyaare ay xaritam ya mu amoon dee leen seeti léeg-léeg boo amee guro jox leen léeg amee xaalis jox leen nuyu leen suufeel seen kanam yëg leen comme na nga yëgee woon sa papa loolu dafay dimbal ndax day tax ñu ñaanal la ay diw diw doomam di ni mu baaxee nangam nangam nangam nangam kon yu mel noonu ay moroomam moo xam sa yaay la wala sa papa ñooñu jokku leen jokku mag su fekkee nag léegi. génn nañu àdduna ngay dem di ziyaare seen bàmmeel di ziyaare seen bàmmeel waaye di leen ñaanal ziyaara nag sénégalais yu bari dañoo foog ne àjjuma lañ koy def léeg ziyaar moom tënkuwul ci bis heure boo ko buggee def mën nga jóg nga dem ziyaare ji sa wayjur booy ziyaare sa wayjur dafa ay teggin booy dugg ci armeel Cheikh Islam Ibnu Taymiya nee na benn bi ci xam amul ñaareel ziyaare bàmmel benn yoon lañ ci xam mooy benn jëfin bi bi ngay dugg ci bàmmel yi assalaamu aleykum ahla almaqabir wala assalaamu aleykum daara qawmin muminin antum sabaqtum wa nahnu lakum taba wa inna insha allah bikum laahiquun yarhamu allahu almustaqdimina minna wa yarhamu allahu almustaaxirin lii nee na boo ko defee ñaanal nga néew yëpp say waajur ak ña fa nekk ñëpp jeex na même boo ñëwoon taxaw ci armeel bi tourné waat def nga sa ziyaar ba pare su la neexee nag nga taxsisal ko beneen dua kooku sa coobare la nga taxsisal ko beneen dua beneen ñaan nga defal ko kooku yaa xam mais jamono bi nga ko defee nga romb armée li jàng ñaan bi wala nga dugg ci armée li jàng ñaan bi ñaanal nga jullit ñëpp insha allah te yàlla dana la may walaka misluhu bokk na ci nga moytu tabaxal ko bàmmeelam loolu du baax mbon la sa wayjur gaañu nga dem jëndi ciment jëndi marbu jëndi or tabax fa foog ni def nga lu baax lu bon nga def ndax li nga def yonente bi da koo tere xamuñ ko ci diine islam waroo tabax waroo def tablo waroo def tablo allama rasulullahi qabra usman ibn maz'un ala hajar armel benn xeer rek lañ fi teg xeer benn mur soo amul mool nga jël xeer yi ñu béton yi nga suy ko ci biir pour ñu xam ne fii armeel la loolu la mais da ngay gis ñun ku ñëwaat di yokkaat jal bi di jal rek fekk jal boobu pour ñetti fan la woon bu jeexee jeex na buñ fa defee dara nag danañ xam ne lii kat armeel la woon noonu lañ koy xamee waaye bu fa def bant bu tooy bu fa samp garab armel kenn du samp garab ku gaañu kenn du ko sampal garab sampal garab mooy dem dagg benn car defal ko wala dagaat beneen yow defal ko loolu kenn du ko def bokkul ci sunna yi ñu xam xamuñ ko ba sunna beneen bi boo fa ñëwee nga ñaan ba pare wëlbatikul nga ñaanal yeneen jullit ñi soo wéetatee bay ñaan nga ñaanal sa wayjur loolu moom mooy respecté ay wayjur ñu xam ne nag ko sa wayjur day dund fexeel nga sàkku ci moom ñaan loolu mooy fi may mujjee képp ku sa wayjur di jull dund yonente bi nee na raxima an fumri torox na torox na torox na ñu ne ko kan mu ne ki ay waajuram di dund mu dem safara ku torox la sa waajur buy dund fexe ko neexal balaa ngaa yëkkati jox sëriñ bi ne ko ñaanal ma wala ngay jox keneen ne ko ñaanal ma ñëwal nga jox maire bi mais pas bi soxlawul xaalis quoi mag ñi nii la ñu mel même boo koy may muy denc may ko parce que dafa am ci nit ñu bindoo noonu moom munul génn munul jënd amul soxla mais dafa bokk ci li koy neex ci xolam mooy mu fas xaalis yow da laa neex mais yëkkati nga may ko neexal ko xam nga ñam bi mu gën a bëgg defal ko ko toogal ci wetam waaye waxtaanal ak moom ngay waxtaan ak moom ba xel mi dal mu lay ñaanal nettali woon naa fii yonent yàlla Moussa alayhi salaam ci waa ji nga xam ne papam da koo ñaanaloon yàlla nga nekk rafiqu Moussa fil janna kon ñaana waay jël nu la ko may loolu